kunda pour nemeku suñu mbokk bugan Gueye Dany ñu yebal fa ay ndaw pour continuer di ñu provoquer di ñu cokkaas yeen ñep gis ngeen vidéo yi man bamay nek ci tribunal bi fa lañ ma fekk dàq ma ci biti bama ma ñu may cokkaas amna sax ay cadeau yu ma fa yëkëti won mané damay jégalu askanu Sénégal parce que du suma cër wante waxon naa ko dugg suma auto ñenti waxtu tok suma auto Thierno Bocoum ak Pape Djibril Fall mën nañ ma seede toog nañ fa ñeenti waxtu xale yi nekk foofu di ruube ak di cokkaas ñu ne pat ba ñu ñëwee ak nañu Bougane Gueye Dany dañ ko mandaa de dépôt dañu noo def point de presse bañ fa génnee pour def point de presse ñoom ñu taxaw foofu nekk fii kenn du fi wax loolu yëpp ci ay xeetu cokaas la ak ay xeetu jaaxle ak tiit moo leen dal Je voudrais may rappeler parce que c'est une stratégie pour que suñu liste bi di sa ñu battre campagne à défaut nous devons ñu neutraliser Nous lu ci leen ko parce que ñun lu ñor wax nañ ko askan wi sénégalais yi am maturité politique pour nous. pour ak Khamé ak ragné Nuissa Koutimboki, ñuy particulièrement le peuple de Dakar dama dernière élection présidentielle sénégalais qui ci une majorité 54 dafa amone parce que dañu avons yaakaar que les plus len digone day am manam séparation des pouvoirs euh, bonne gouvernance la gestion des deniers publics euh, respect de droits humains daanaka ci gàttal dafa amoon lu ñu woote woon ñoom mooy jub jubal ak jubanti du noonu dem ba ba ñu nekk suñu meeting d'ouverture yéen ñëpp gis ngeen ci internet ay ñit ñëw ba suma buntu kër yàq foofu ay tableau yàq fa ay oto taxaw suma buntu kër di fa wootee fitna maa ngi jégalu nag ci kàddu yi ku ma yëpp rek danga fekk may nelaw wala dama ne wala wala wala kuma yep rek da ma fekkul fofu rek dama ne man du ma ken duma du ken dina wax luma ma wax ci yarak ak wante amna na dul nangu ñom nak comme ñom def nañ sen stratégie moy lu tubab di wooye la stratégie de la lâcheté moy xaar ay 4 heures du matin ñeu song ben siège bu amul ben sécurité parce que pour ñun ñu guerre ñun pour ñun siège dañuy am siège pour mën réunir

ngeen may ma ma wax ak askanu Dakar seen yaakaar tas na yéen a fajal seen bopp cette situation du ñun parce que ñoom heure bu may wax nii dañu tiit mais comme ñoom ay experts ci manipulation la ñu ñu ngi jéem a xool lan la ñuy def tey ci guddi amaana sax ñu dem taal seen siège pour jiñ ñu ko foofu lañu toll ak ñoom su ma baat ci kaw képp ku ma déggal. képp ku déggal coalition sàmm sa kàddu yónni wuñu kenn fenn santuñu kenn dara Fi aduna la te politique ken du ko alakhira. politique dañ koy def ngir gëm-gëm ak yakar bu ñu am ci suñu dëkk ak ak suñu ak ak suñu ëllëg kese moo tax bépp manipulation bu ñu mën a def bu ñu ci topp mais birilaat wax ci campagne na fi élection présidentielle wa Pastef ak may dégg yeneen coalition yi ñu ngi may dégg fépp fu ma jaar nuyu naa sargal naa leen def ay selfie ak ñoom ñaanal naa leen te dem naa suma yoon may sàkku bépp coalition bu ñu romb ci élection yi waa sàmm sa kàddu yéen lay waxal bu leen tooñ bu leen saaga ku leen cokaas nag ngeen ngeen ngeen ko ak yàlla wante ku leen song vous devez vous défendre loolu mooy dëgg parce que nag yaa fuus amu fi maintenant nag dama bëgg wax ci leer dama ne tey ci guddi laa wax ku fi jaaroon démb ba cokaas fi nit ñi ba dem di yëkkati ay kaddu yu ñaaw su fanaanee këram tey ci guddi laa wax su fanaanee këram tey ci guddi na ngeen ko déggee noonu Sénégal séparation des pouvoirs amu fi su fanaanee tey ci guddi këram mooy ministre de l'intérieur dafa am fu mu far mooy ministre de la justice dafa am fu mu far de Soumo ministre de l'intérieur du militant au Pastef Soumo Djoumout tamit ministre de la justice du militant Pastef nous Sénégal vous êtes devant vos responsabilités est-ce que Sénégal a une séparation des pouvoirs parce que li le fi de du délit c'est un crime c'est un crime ça c'est la chambre d'accusation Je vais vous wax suñ ko defut nak na wax ci tamit lérat moy fi le pouvoir il n'est pas éternel ñom dafa am ku ñu remplacer du nonu ala kulli aal bés ci tamit dina am ku leen di remplacer ils ont intérêt à traiter ce dossier parce que suñ ko traité wut ceux qui vont les remplacer traiteront ce dossier avec tout le sérieux qu'il faut on ne peut pas accepter que ci benn deuk ay criminels di wone sen bop di yëkëti ay duñ leen topp duñ leen convoqué duñ leen arrêté ñu fokk ni day mënul interpellé le ministre de la justice et le ministre de l'Intérieur. intérieur waa ji su këram tey ci guddi na ko ñëpp le Sénégal amul séparation des pouvoirs kon nag boo sénégalais yu fi voté woon ndax séparation des pouvoirs wax dëgg yàlla nag pesum kanam borom ak fajal boppam le 17 novembre ngeen sanctionné dans les urnes pour nous xam que askanu Sénégal du ñu askanu mala bañ leen di fal dañ leen faloon ngir Nous ak yaakaar faluñu leen pour que Sénégal continue di une dictature rampante pour ne pas dire une dictature debout mbokk yi ginnaaw suba le 30 dañu fas yéene Tamba Tambacounda Khulo de fa xeex yóbbuwuñu fa cokaas yóbbuwuñu fa dañ fa dem jàppale suñu xarit suñu qui est otage du régime actuel ci yoon bi bëgg wax ci may invité la presse nga ñu topp dinañ dinañ def lu nekk gis ngeen sax ay responsable ñu bokk ci ñu ngi pour xaar moo tax tey ñu bëgg a insister ci xeetu injustice yooyu di sàkku nag ci askanu Sénégal dañu ubbi seen ay bët ñu xool est-ce que lu ñu doon xeex ndax Sénégal mën a démocratie est-ce que Sénégal la ngi ci yoon pour doon démocratie wala est-ce que Sénégal la ngi ci yoon pour doon benn dictature rampante foofu nag lañ leen di xaaree dama ne démocratie lu la metti da nga koy faj ci ci kees yi ñun loolu la gëm ñom nak amana nous leneen avons ñu gëm ñom nak luñu gëm man luma gëm moy askanu Sénégal nous lolu ñun Nous gëm tay sénégalais ñu ngi xaar ci acteurs politiques un peu plus de sérénité ñu Nous ak dal ñu tamit ak responsabilité moo tax lu fi xew ci siège euh, taxawu Sénégal di quartier général de coalition sàmm sa du dara amul solo dañuy di parce que kenn ñàkku ci bakkanam kenn amu ci ay gaañu gaañu kon nag loolu wax dëgg yàlla dañuy santaat yàlla ci loolu parce que mënoon na gën a ñaaw mbokk yi damay bañ a guddal di insister waat une fois de plus ngeen bàyyi xel ci luy xew ci semaine bii parce que am na ay nit yu fi def ay ñaaw ñaawteef ñu ngi jéem a xool fan la ñu mën a am ay ay ay ay plus ou moins ay nit yu mel ni ñoom dama ne fii dakaar mokk na ba pare te xam nañ ko lu ñuy def nii. defu xaleel la mooy lu tubaab di booy ay enfantillage amul benn solo te nag ñuy ñaawlu bu baax a baax a baax taxawaayu ngeen xam ne noo na doon kilifa te gis nañ dem taxawaayam mooy ku ma doon wooyee rek mimi parce que lii yëpp loxoom tamit mi ngi ci parce que a un comportement violent il a un discours violent gis ngeen ko démb sénégalais ñu ngi koy xaar ci ay programme mu nekk foofu di wax ay waxu coppet ak ak ak ay waxu ñàkk fayda yu mel noonu moom moom moom ci boppam

di joy, suma ma jëkkër suma su ma ak ma bëgg wax ji lèr sénégalais fu di xaar programme sénégalais fu di euh, fu di xaar moy ci passe. sénégalais fu di xaar ci sénégalais dañ leen fal à 54 pas pour ngeen nekk fi di dëkk di dëkk ci nek di bëgg nax ñi ak di bëgg manipuler nit ñi ak tamit di bëgg note violence il faut dañu par la violence nous devons continuer d'exercer le pouvoir par la violence qu'on aux Sénégalais de faire ce qu'ils ont à faire inshallah, le 17 novembre 2024 dans les yeux.